Cheikh Ibra yow kuréel yaa ko gindee. Jazboul Mouride au service de maam Cheikh Ibrahima Fall. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ñu ngi leen di ziaree fii nag si liggéeyu Mbàkke bi xam ngeen ni liggéey bu mag bii maam Cheikh Ibrahima Fall di liggéeyal Cheikhul Khadim jaarale ko Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbène Fall yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér incha allah fas yéene koo jébbal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla nañu fi bokk yàgg loolu te ànd ak wér

Eh, di siyaare suñu Mamour Ndaw Baye Fall day mel ne ne soññee bi ak eh, leeral bi yëpp dama ko bëgg a bàyyi suñu Mamour rek bu defee moom dana si jottali lépp rek ñu sant ñëpp ni nga ko waxee rek gis nañ bil bi te xëy na di maasale suuf si ndax korop bi ñu waree sëkk dañoo woo mbooleem camion yi nekk ci diggante mbakkeek tubaa ak Bambey ak Njaaréem ñoom nag ñaare suñ liggéey ba mu tàmbalee ba léegi noonu la ñuy doxee ñun xam ni gasoil la ñuy wut rek

bare paree dafay ab jal bu reuy bo xamni ci lañu agalé mbooleem li des sëkk bi ci lañu lañ tollu ak sa jere jërëjëf. seigne Mamour liggéey wi bis biñ ko tambalé ñuy fatlu ko ñëw fekk eh, stade bi won fekk fi tribune yek miru stade bi mbokk yi ci lañ ko songu wacc lepp tàmbali liggéey bi ba tay ji alhamdullilah rabbil alamin danaka patch bu njëkk bi mu nañ ko waxee noonu daanaka àgg na. jere eh, jërëjëf seigne Aline Badara di santat bu baax baax mbokk yi top yëpp bi réew mi ak bitim réew di jaajëfal baax wax alali maam Cheikh ibrahim Fall ci pas-pas bi ak dogu gi jëwriñ général Omar Seck wax na ko léegi fii day barab boo xam ne lii rek a fi yàlla ndax fii la Serigne Touba gënee jamono ñu baax ñëpp ngi tëdd fii armée li mbàkk yi xam ngeen ne borom saam rek doy na sëkk boo ko tuddee ko tedd ki doom kenn ki njabootam ñu ngi nii nga jàkkaarloo kon fii lii rek moo fi yàlla moo tax Cheikh Mouhamadou Mountakha nag xam li xew waxon sëñ cheikh jëmm nako ko dama bëggon ñu toj ko ba mokk sampal ma fi dara sëñ cheikh jëmm tambali ko liggey fi liggey bu reuy bo xam ñepp ñëpp xam nañ taxawaayu bi mourid yëpp nak taxawon tem rek ngir def bëgg sëñ bi yalla dogal ñu gungé sëñ cheikh jëmm bam mu ñibbi àjjana sëñ am di di Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra waxon ne fi ma tok fi tok su diglé def len su téré balen su laajee jox len su wóotee wujj ndax su xamul ma xamal ko su amul ma amal ko su ma manal ko bi mu ko songee nag ànd ko njaboot gi te xam nga ne sànce yi day fekkante sa ñaarin Badara tabaski yeeg koor koor geeg yii ñëw yëpp lenn lu ci nekk rek bu ñëwee fekk ñu ci liggéey bi mbooloo miy liggéey lee ñooy dem di liggéey la sëriñ bi waxoon na nag ci jamono yi nga xamante ne ñu ngi mal koor gi na woon nañ jëm ci ndog yi waaye nañ fi bàyyi général Omar Seck mu ànd ko alali maam Cheikh Ibra Fall ñu àgg ñu ne ci liggéey bi lu jiitu loolu sax matt mi nga xam ne moom lañ daan toggee li daan jëm si ci lii ak lu jëm ci ceeb ak lu jëm ci añ bi fii général gàddu woon na ko ne ci leneen waaye bi mu demee nag ba nga xam ne nag léegi nag sëñ bi ne da ko far féetale ci liggéey bi nag mu desoon nag finition te ku ne xam ne finition mooy liggéey moo xam karo yi moo xam peinture moo xam installation bi moo xam wàllu ndox mi lépp mu taxaw tem di fàkkoo ko xëccu ngir lépp mat ñu dem nag ba tollu ci fi ne nii ngir war a jëbba sëñ bi liggéey bi ndax ku xool xam ne bâtiment yi noppi na mbaar yi noppi na lépp noppi na li ci des mooy leneen li nga xam ne war nañ ko fay defaat te loolu tamit lii moom bu demee ñu waajalaat loola ndax yoon yi moom ni ma la waxoon saa su ne ba bis ba ñuy ñibbi rek dañuy Cheikh Ibra ne woon na jàmbar dëgg day bàyyikoo ci waar yu dem ci jàgg bi ñu nekk toll nag ci wàllum sëkk sëkkoon biir bâtiment yi bay maasale waaye liggéey bi ku ne xam na ne liggéeyu Cheikh Ibra la mu waxoon nee na wàcc biir bàmmeel laa ci xamoon du yegg mukk da nga ci ne ba faaw général di xëccu di xëccu ba waxtu wi tey ñu tollu nak ci ku ñëw fi teg sa teg sa bët da nga xamni li li sëñ bi bëggoon def nañ ko mag ñi nak neñ ko def bëggu sëñ bi sëñ def seen bët waaye ba tay ji may waxe fi ñu tok léegi léegi léegi léegi la mujjé tak ab lim ci xaliss ngeen jox ko joxé ko li ngeen di seen muy muy muy muy biil bi ngir mu daw wutiwaat wat gaasuwaal ngir àggale liggéey bi te njort naa né bala ñu fi juggé fi ak ngoon lu gatt gàtt dana jël lu ëpp 300000 ndax ku xam motoor bi xam ne li koy doxal lu neen waaye lépp ngir def bëggug sëñ bi rek kon nag euh, murit yi ci biir réew ma ci bitim réew ñu moo ñu fi ba dañoo ko fi bax lañ daan wax ca moo ñu fi ba ñoo ko fi ba sëñ bu taylee boppam fii ñun a tax nun moo war jot sëñ dañ koy jotee mooy fexe ba li ko sëñ Tuubaa sant lu def ko kon nag ay ca murit ay ca murit ay ca murit bu ndigal jógee daal mag ñi nee na njëriñ jóg na bu ndigal joge ndigal jogna njariñ jóg li des ci liggey bi ci cat lañ toll samaam nak newon na cheikh ibrahim neena yem ma ki tambali ki agali la yem xam nga lan moy gis nga seigne Aline Batara na bëreet ak yomb tambali waye gis nga arrivé moy problème bi te cheikh ibrahim neena yeggale la ku yeggale la yem legi nak ci cat lañ tollu ni te man baye duñ ak mas na maa wax na ma samaam cheikh ibrahim la dig ci làmmiñam wax ci njëriñ ni lu way bëgg mu sax bu bàq na ko ji fi ne bàq na bàq tooy na mooy ay fan yu néew a des ci suñu digganteeg liggéey bi dem mais ku ci deful woon tey ana foo jëm ku doon waaj te ñëwagoo ana foo jëm kon damaa jàpp ne ñi nga xam ne rëccoon na leen te ñu ngi ci cat li te ab lim buñ ko amoon rek fii may waxee yow nii lépp mat gis ngeen image yëpp di ngeen ko gis est-ce que ko Alioune Badara kon duñ xëccu xataraayu fexe ba bokk ci yeggale bi. ak yomb 534. 89 11 boo defee 78. 534 89 11. te ni am na ndaw yu sawar yëpp. boo ah, ci woowee eh, général Omar Seck ngay jot direct. tubarkalla moom même moom boo ko woowee jotoo ko sax tàbbalal te xam ne numéro baa ngi noonu. so so saa bu nekk da ko mën a jot. 78 78. 534 89 11. am na ñaari jumtuwaay yëpp fu la ci neex nga jaarale ko ci. waaye lépp lu ko waay jox mu jox ko Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouride loolu Cheikh Ibrahima ko wax de Omar lu mu wax maa ko wax. maanaam mooy samay bët daal mooy samay loxo mooy samay tànk fii mu nekk sëriñ bee ko fi yabal kon nag li des ci liggéey bi daal mooy finition te yéenay naa Omar Seck kat ak mboolem àllee Cheikh Ibra mooy suñ koy jébbal sëñ bi boole ci lim. maa ngi sant baax si Maodo ci kàddu yi li mu wax rek wér. yéene ji mooy bu liggéey bi àggee ba ñuy jox sëñ bi ceeb ji joxaale ko ab lim. waaw ah, ñoo ko ñoo ko ñoo ko barkeeloo waaw loolu mooy yéene ji li mu wax liggéey bi li ci des mm. euh, ndax kon ba ñu fi bi yabal. boobu ba ñuy laaj téeméeri million lañ doon laaj fi mu doon nii dem nañ ba li liñ fi soxlawaat ñun ngir war fee defaat xanaa ah, suñ bi joxaat ñu fi leen waaye liñ fi soxlawaat war ko fee fii matul ah, 3 millions fiy toog di laaj téeméeri téeméeri million lañ doon laaj te téeméeri booba dañ ko xayma woon waaye lafi dem li fi dem ci finition bi ëpp na téeméeri million fanweer di dem ndax karo yeeg peinture beeg électricien beeg ak leneen ak leneen yoo xam ne moom ñëwutal xayma kon loolu ak cant la waaw ñu ngi li may wax rek maa ngi ñaan nag képp koo xam ne li si maamul wax ne Seer Faal ne ñëw ma ko tàmbali ko àggale laa ñëwee te mbir maa ngi ci àggale euh, ñi ngi ñaan képp ku ci bokk rek yal na Seer Faal àggale seen mbir ëpp nag ma gëm Seer Faal mooy téeméeri million lañ doon laaj ci liggéey bi song nañ ko boobaak léegi ba ñetti million ci des damaa jàpp ne ñàkkul ku seex Ibrahima xaar ngir ñetti millions yooyu ci moom la ko war a jaarale ngir mu yeggale ko damaa jàpp ne ñetti millions yi des ci liggéey bi ngir ñu jébbal ko Cheikh Mouhamadou Mountakha ñàkkul koo xamante ne bii fii may waxee yoon nii moom la Cheikh Ibra doon xaar ngir li des ci ñetti million yooyu moom mu daal di koy fàkku moom joxe ko ngir mu àggale liggéey gi. tey tey te xam nga xaar amul. Hmm. ndax fii may waxee yow nii bu loolu tàbbee ba liggéey bi daj macha allah Thiès a nga koy xaar. waaw xam nga nag Thiès Cheikh Ibra daa waxoon ne ganaar ak jaboot fa mu gën a wóolu lay dencee cuujam kon cees fa la Cheikh Ibra pare woon pour dëkk ndigal kayee ko indi njaarim waaye Cheikh Ibra daa installé woon Thiès ngir dànd sëñ féete ko ci sow bi ba bëccëg ñam ya di ñëw ba Bàmba xëy sàkkum pexe bu yàlla sekk sàkk sëñ Seex Njaay Mbeng nee na ma Seex Ibra daana togg ay ñam di ko teg ci saxaar gi ñuy ñëw njariñ rëgër yër saxaar gi ndax dëgër rëgër yër lañ ko daan teg taalibe yi sikkar jiital ñam yi ñëw njariñ ba ku tedd ki yónnee ci maam Seex Ibra Faal na ñëw Cees maa ngi neen keroog bañ koy fekk si ndigal li di ko fekk daaru bay rek ca tool yi lañ ko fekk Seex Ibra jaarul Medina Fall foofa la tegee cene ba lañ ko daba ak warukaay sëñ Bàmba woote na bi mu ñëwee njarim amu fa kër mais Thiès la pare woon pour installer pour dëkk ndax nee woon na Cheikh Babacar Lo wutal ma kër Thiès ndax ganaar ak jaboot fa mu gën a wóor lay denc ci jëm ah Thiès kat barab la waaw daan ne xa daan ne Cheikh Ibra wax ne mooy kër gii nga xam ne fa la général Omar Seck war a war a dem lu ñetti fan ci des ngir mu takk ay bagaasam ndax sëriñ bi nee na ko jiituma Thiès ta waajal kër googu kër googu ci Medina Fall Cheikh Ibra Fall nee na magasin bi ñuy fayee góor ñi ëllëg buntu bi kër gi la tiim cheikh ibra ko wax de na touba dëkk la ndiarim wanak la waaye ties la muy sam pek bay mu du mbay isaaree na ko luy pek mu rokk bi nga am sa bir nek di ca def dund ba nga gën a fonk dégg nga cees lay fale góor fa lay fale góor ties Cheikh Ibra ne ndaw lu bëgg ta ndjel nga xamne ndjel da lay yomb da nga dëkk ties waaye fa ñuy falee góor di fa foolee góor Cheikh Ibra ne xasaay rahmatu buntu bi le tim wa dama ne xana kër googee kon su fekkee ne Cheikh Ibra ko wara ñew nam fa da ñewé ndax ki ay Cheikh Ibra de am bu wér mooy Cheikh Ibra Fall waaw de su xamul ma xamal ko su amul ma mënal ko ku ko xamoon dimb xam ko te xam na Cheikh Ibra dugg ci moom kooko war a ñëw te fi mu war a ñëw nag dañ ko war a waajal dama ne kon mbëkkate murit bu ne am na loola war nga daw jiitu sëriñ bi Thiès nga waajali sëriñ bi bokk na ci bâtiment bi nga xamante ne bii sëriñ bi fa war a dëkk dañ ko war a yeesalaat ngir mu gën a mucc ayib ba sëñ bi fekkee ko na mu war a mel bi ci des mooy ndox dafa war a am courant dafa war a am lépp luy jëm ci matériel dafa war a jiitu sëñ bi ba sax lu ñuy jëfandikoo dafa war a jiitu sëñ bi bi ci des mooy guddi gàmm ku ne xam ne la ci sëriñ ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba wax ci ku ko màggal temps yi ma ko bi sunati yaquduna li jannati bi isdiyaati minati li moom la seen moazami ca jës bu ku ne xam na ne guddi gi guddi la goo xamante ni bii mooy guddi gi gën ci guddi yi ko bu ko gàttandoo nag ak ay ay ñam ak i xéewal nag yeeg xar yeeg giléem yeeg ganaar yi nga fexe ba lépp ñu jiital ko def ko ci guddi googu na la wóor ne lépp luy ngëneel ak i tuyaaba dana feeñ ci yow kon nag nag yi nañ ko waajal ganaar yi nañ ko waajal pigeon sax bu ku ko am na ko indi xëti ndax ndax kat euh, bernde rek Cheikh Ibra waxoon na ne dabe ndab rawatina nag nga def ko ci guddi gi nga xamante ni mooy guddi ki yàlla yónni woon ci noonu te mooy gën ki mi def sallallahu alayhi wa sallam ba pare nag nga jaarelewaat ko ci loxol Cheikh Ibra Fall mi xam ne kenn du audit mbiram day jàll loolu loo ko Cheikh Maola di waxoon. sëñ Thierno Diaw paxa moo nañu bàyyam nee na sëñ Mat Diaw se ëllëg lu mel ni melax soo ko gisee xamal ne Cheikh Ibra Fall dem naa waa këram Cheikh Ibra kenn du audit mbiram kon ku bëgg li nga yor yegg. te kenn du ko te te maanaam mooy yegg ndax yegg mooy problème bi yegg mooy problème mu ñëpp waaye ku jaarale ci Cheikh Rafal dara dana yegg te jaar ci Cheikh Rafal dara mooy waajal ci guddi gi ngëneelu guddi gi nga jëf ci jëf ji jaar ci loxol ki nga xam ne bu jëf jaaree ci moom day dem nga jaarale ko ci moom ngir mu dem ci ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba jaaree ci kii yàlla yónni woon ci noonu muy ngën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam loolu dal nan xasi yàlla batara bokk na ci nag nga defee ko nekk ci li gën a yéeme sax mooy bernde lan mooy dabe ndab mooy ceeb Moy, lu jëm ca la and am ndugg lepp lo xamanteni ni bi japp nga ne soko ci guddi dabu bëgg bëgg seigne touba ak sangam bu tedd sallallahu alayhi salam loola nga jaaralé ko ci loxol Cheikh Ibra Fall ñëwal Thiès général Omar Seck nga hamne, lu jëm ci bernde yi sëriñ bi tek na ko ci loxom ku ne xam na daaw nag ye gilem ja ya, bés bu set ñi ngi defar di jox gan yi te na Cheikh gam suñu tambaliko ba guddi gi ñu fanaane ko ak turu yàlla wi mu gunge ko bu xëyee soññee waajal addi yi jëm ci Serigne Touba ñu yeewi mbooloo mi lii la Cheikh Ibra nekkoon te loolu la santoon Cheikh kër Lo ma nga xam ne moom la fa jiitu woon daf ko ne ku judd ci kër gi dañ ko dalal mu jàng su jëmee ba wàcc kaamil bi na jël mbindum ku tedd ki téere Serigne Touba te bu Cheikh Ibra wootee mu tëliwuj lii lii dox ci kër Cheikh Ibra Fall leneen loo dajeel dañ ñu ko tuumal waaye lii fi am kon nag ay sa murit moo ñu fi ba ñoo ko fi ba bu ndigal jógee daal njariñ jóg na mooy li des ci liggéey bi nañ ko dóor mu daal nañ dem Thiès gunge ji Cheikh Ibra Fall ngir gàmmu gi nga xam ne neewoon na waa sawu jant lay gàttandu si fii ñu la sunu ñaq jaarale sunuy jëf la sunuy bernde ci loxol Cheikh Ibra Fall mu berndeel ñu ci guddi yonente salaa salaam jërëjëf sëñ Mamour kon général Seck man ne fabu nga waaw fekk ñaari fan ngir dem gàttandu ji sëñ bi Thiès gi nga xamante naka la njabootu maam si ëppati gàmm. waaw xam nga sëñ Aliou sëñ bi sëñ am na mu mel dafa yàlla na fa yàgg te wér waaye ku ku nga ko. Mm-hmm. Euh, bi jàll bii maam bi jàll bi ki topp xam nga tey la ajjuma taata bi ma waxoon demal Thiès. Mm-hmm. maa waajee bay dem la wax suñ mën ne ko nañ dogaa ci liggéey bi ne ci liggéey bi tam àgg tañ tañ gàmm ci daa bëggoon suñu àggee Thiès ñu yees nekkaat ci bâtiment ya donc karawaat ak peinture ak yooyu mm-hmm. waaye mu ne liggéey suñu doole bi daal dafi nekk ñu defal seer dara dan nañ na ci liggéey bi ba gamu gën ñu gamu tay ji ni léegi la waat ne li ci ba wax ci teewaay suñu sufa fal falilu suñu sufa mbar maa ngi sama yàggal dundam ci la waat ne nañ wajal gamu gi ciess daal ne bu dem nak lama laaj fu liggéey bi tollu mo wax ko mu ne fi ñetti fan su àggee na nga dem ciess wajal nga ngi ñëw mu ne ko fi ñetti fan de gëm nañ ne fay peinture dana ag lola nak soññee nañ ko la war a àggal gis nañ ne war wax si maam wax na ko murid yi dégg nañ ko mel ne ne tey la ajjuma samedi dimanche ñetti fan yi sëñ bi wax bu paree altine ca ngoon ñun bëgg nañoo fanaani Cees taata bu ñu xëyee dugal ndox mi ndax ñëpp xam nañ ne ndoxum foofu ci kër gi ndox mi dafa néew doole ci teen ba fa suñu Ablaye Fall Ndar wala suma jiw suñu mortaala mm-hmm. ko fa gas rek mm-hmm. ci lañ monté benn pomp pompe boobu la jël dugal ko ci kër gi muy alimenté kër gi yëpp ci la ñuy génne waa rëbbi na ci penc mbooleem ñu wër penc mi yëpp fa la ñuy duisee naa ni jiiru ñu fa sëñ bi dafa nekk ndox dafa manqué lépp ci teen bi lay jógee euh, bu ñu si jógee installé courant bi ventilo yi néegi war am ventilo ak ay clim yëpp ñu monté waat ko bu defee suñu fa jógee nag soog di waajal nag nag yi nga xam ne waxtu wi sëñ bi accès diir ba fa yëpp du set bu nga réewul ñaari nag da nga nag baa nag mhm. ndax xéewal yi moom du yem ci kër sëñ bi mbooleem li mët na faal si xéewal yi sëñ bi dafay tabbi ñëpp xam nañ ne buñu sampee waañ ci kër gi kër gu mag gi nga xam ni mooy kër gi dañuy samp ñaari wàññu jàkkaarloo ci penc mi benn bi ñu koy samp kër ñoom Mudu Anta ñoom ndeysaan am na gàtt bu ñu leen di jox rek des lépp nañu ñoo koy def dañ leen di jox benn gàtt rek nag des lépp ñu jaayante ko waaye fiñ benn kër ak benn kër axma dañ fa samp waañ woo xam ne dafa nekk lépp ñoo ko fay def bu defee ñoom it ñooñu bu ñu paree añ dañuy dañuy yëkkati ne dajaloo ci penc mi naa xam ne amuñu fa kër wala xamuñu fa ñëw dal ci penc mi fa leen fekk noonu la ñuy mag noonu la Serigne Fall kon nag mbokk yi ñoo ko déggandoo. ay ca murit liggéey bi euh, ñetti million. Mhm. fii ñaari fan. général Omar Seck ànd ak alali maam Cheikh Ibrahima Fall. di coow dem Thiès. Mhm. waajalal sëriñ bi. ci nag euh, dalluwaay bi waaye waajalal sëriñ bi ci wàllu bu xéwal ak képp ku wuy si sëñ bi kon nag euh, jëfukaay yi ngi doon mbokk yi si 78 534 89 11 ay ca murit jaa ngeen jëf. 77 wala 77. 649 95 88. 77 649 95 88 ñaar yooyu yëpp ay jaaruwaay lañu kon mbokk yi ñu ko xel bu baax ay ci murit. Cheikh Ibra yow ku réer yaa ko gindee. Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall.